Oui. Donc les Sénégalais sortaient timidement pour aller mhm. voter. mais durant la soirée donc il y a eu un, un, un afflux boo xam ne mhm. nit ñi gën nañoo génn gën a dem voté ji loolu moo que mhm. ni fort heureusement li nga xam moom lañ doon am ci crainte lu ci ëpp mooy taux de participation bu wàcce mujj gi dafa mujj yéeg donc jóge ci 46 en 2022 ci 49 points euh, ce qui fait donc euh, vraiment euh, bokku na ci li nga xam ne tamit. dafa mhm. bokk ci baromètre de mesure yi bis boy def le décompte. Mhm. mais d'abord rek di commencer di féliciter le peuple sénégalais soxna Ndak. Mhm, di féliciter tout le peuple sénégalais franchement parce que Sénégal. dafa nek rew mo xam say su jubee élection rek da ngay gis ay tensions yu intense ay tiraillement ba ngay japp ni sax yow xeyna na élection yi dootul amati si jàmm yàgg na am mhm. élection présidentielle yi ci tension bu méttee métti lañ ci demee woon mhm. élection législative 2022 également tension yu métti ba mhm. ngay njort sax ne yow Sénégal moom balaa muy dem ci élection yi moom maanaam ce sera le chaos total élection yi tamit noté noté nañ ci ay violence yoo xam ne vraiment am na ci euh, bañu bari titone amone njàqare ci mhm. ëllëgu ëllëgu ëllëgu réew mi mais mhm. Sénégal à chaque fois c'est un peuple mature bo xamné chaque jour rek day mëna mhm. won cette responsabilité là cette maturité démocratique là moy ñëw wané nak wax dëgg mom changement bi mu bëgg def wala li bëgg a opérer euh, en terme de voix en terme de volonté li bëgg wané fenn la koy défé moy à travers les urnes du wacc ci mbéd mi di xeex ba fol kenn du wacc ci mbéd mi di xeex ba fal kenn waaye chaque jour ni mi falé, wala muy folé ni rek mooy mhm. à travers les urnes te mhm. encore une fois tay jii la lañ wane. Mhm. donc euh, di féliciter aussi le parti Pastef bi nga xam ne. Mhm, ñoom la suñu borom dogal tey sont arrivés premiers. Mhm. de ces élections législatives là. donc euh, ñi ñu ci xam ñëpp ñu nekk ci seen liste yi ah ma kenn ñu may wax léegi sama DG Abdoulaye Sarr. Euh, soxna Mbène dëkk Yoff. donc di ko féliciter bu baax a baax pour son élection. ak ñëpp rek ñi nga xam ne tey jii jàll nañ mais aussi la coalition Sàmm Sa Kàddu di leen féliciter bu baax a baax. liñ ciy sant yàlla rek mooy au moins aura des voix mhm. yoo xam ne suñu yaakaar dal na mhm. am nañ yaakaar bu baax ni voix yooyu bis bu ñu duggee assemblée mhm. rek Euh, quel que soit aussi minoritaire soit seront-elles mhm. dinañ mën porter la voix du peuple dinañ mhm. mën a euh, mhm. euh, faire à ce que li nga xamné mom la ñeneen ci askan wi ñu fësaloon te mooy ñi d'accord ak Pastef yenen voix yi ñu mën yëkëti ñom ñoom seen voix ci biir assemblée te lolu bokk na ci le président Pape Djibril Fall donc gis nañ calcul yi génnagum yëpp calcul provisoire yëpp que ni au minimum dinañ am au moins plus de 8 députés donc ñoo ngi yaakaar sax mu ëpp lolu mais mais calcul au grand minimum dinañ a plus de 8 députés mhm. ce qui fait que donc le président Pape Djibril Fall mhm. Mhm. sa voix continuera à résonner à l'hémicycle te wax deug sénégalais yépp ko parce que xam ni euh, bu responsable la nekkul ci parparloo nekkul ci mhm. parti bi moom fi indi ay mhm. intérêt am lay défendre moom intérêt mhm. sénégalais lay lay xool bis bu parti au pouvoir loo xam ne wóor na ko wóor yàlla li intérêt sénégalais yi la il n'hésite pas day tranché day voté pour loolu bis bu ñu indee loo xam ne tamit du intérêt sénégalais yi lu ñu bari bari biir assemblée du tere moom dina yëkkati kàddoom ne leen li ngeen def nii du intérêt yi te moom boobaa du ko voté incha allah donc cette position neutre là nga a situation euh, lu ñu nemmeeku nak ci les élections modi euh, euh, fa nga xamné ni modi les bureaux de vote des candidats bu ci melni fa nga xamné modi école Ngalandou Diouf bu kilé di Anta Babacar Ngom fa nga xamné modi moo HLM nga xamné modi HLM Grand Médine bu kilé di Amadou Ba ak it ki nga xamné modi mom di mi lee di maire bu Ndakaaru di Barthélémy diaz Papa Djibril Fall sa leader